wala loolu mooy décalé bu ñu ko décalé ci diggante bi te mënul génn le 2 avril pour la passation des pouvoirs amul problème par contre le président de la république yow élément yi nga ma jox nii ñett yëpp moom ça ne tient pas parce que loolu en réalité constitution bi da koy dàq ma jox la benn exemple l'article 92 de la constitution du Sénégal les décisions du conseil constitutionnel s'imposent à tous non d'abord dañu ni au pouvoir publique qui sont les pouvoirs publics le président de la République l'Assemblée nationale le gouvernement et le Conseil constitutionnel lui-même c'est-à-dire le Conseil ses décisions s'imposent même à lui-même dans ce cas de figure ñun ñoo ko def ñu ne à toutes les autorités administratives et juridictionnelles le président de la République est une autorité administrative quand il prend un décret il agit en qualité d'autorité administrative et il agit ici en qualité de pouvoir public ñu elles ne sont susceptibles d'aucune voie de recours d'aucune ça veut dire que même mënoo dem assemblée nationale c'est un pouvoir public donc loolu mooy lan xam nga li ñu def suñu constitution mooy lan même les erreurs du conseil constitutionnel s'imposent à nous tous États-Unis seen cour suprême noonu la l'un des meilleurs constitutionnalistes américains Jeffrey Rosen en 2000 gis nga li xemoon entre Al Gore ak George W. Bush comptage recomptage Floride mujj gi dañoo dem même wax ak Al Gore cour suprême États-Unis ni Bush a gagné te pourtant ay juges conservateurs ñoo fa nekkoon xam nga lan la Jeffrey Rosen wax mënu ci dara dafa génne article am rek ne le déshonneur de la cour suprême est-ce que dafa tax Amérique ñu ne George W. Bush doit prêter serment les erreurs de la cour suprême s'imposent aux autorités administratives juridictionnelles et au pouvoir public américain gis nga conseil ñoo ko def suñu suñu constitution nañ ko accepter une constitution elle ne bavarde pas une constitution du ay vague pétition de principe Ousmane Sonko n'est pas candidat pourtant dama doon wax ne partout où le droit sera dit il sera candidat moo Karim Wade bi ñu leen euh, invalidé maa njëkk a génn ni c'est injuste j'ai défendu Karim Wade depuis 2012 j'étais à Grenoble toog nañ plateau bokk ko. très bien Lamine. ma défendre ko keroog bi décision bi génnee comme Aziz ni mu ko waxee ñun dañuy jàngale xam nañ droit international nationalité ni mu évoluer ma ne le conseil constitutionnel la nationalité soo koy apprécier c'est dans le cadre global d'un processus conseil constitutionnel li mu def pour invalider Karim Wade moom la nangul boppam pour invalider Ousmane Sonko parce que bi muy déposé dossier il était déjà éligible moo ko wax dans son considérant 16 waaye bu loolu lépp amee dañu koy nangu parce que dogalu conseil constitutionnel la nit ñi ci président de la république war ci tënku beneen bi ci topp mooy président de la république dafa jël def promesse électorale mu pare ci promesse électorale mu doon engagement maanaam lan ni damay wàññi sama mandat de set à 5 ans conseil constitutionnel ni ko yeeyaay eh, mënta ne 2016 considérant 32 ne ko fii Sénégal bu fekkee ku fi ñëwal sa bopp mën a yokk wala mën a wàññi xaw ma fu ñu jëm il faut la stabilité des institutions conseil constitutionnel nekk na fi 4 membres kenn ki faatu ñaar ñi seen mandat de mu ne eh, yaay maay décider yéen a ma jox cër yooyu c'est pour la continuité de l'État et la stabilité des institutions Sénégal nag dafa am nu ñu koy bàkkee may mun a ma wax gis nga le président de la République quand il prend un décret pour ni ma ko waxee sànq ne dafa abroger le décret portant convocation du corps électoral sa ne affecte en rien du tout la continuité du processus par contre en réalité dina affecter n'est-ce pas le jour du scrutin léegi dama lay wax exemple le président nee na day xaar assemblée nationale mais assemblée nationale la muy jël foofu député yi nekk assemblée nationale mën nañ jël contesté ko conseil constitutionnel le conseil constitutionnel aura encore un mois pour trancher te conseil constitutionnel mi muy wax ne moom la ñu jiñ affaire bi mbir mi bu demee ci moom kon lu mu wax tey dañ naan kon président de la république danaan conseil constitutionnel mënu ko trancher ça a laal ñu mënuñu waxee nii le président lu tax c'est une voie sans issue parce que fii Sénégal li ma mus a xam di jàngale droit constitutionnel Aziz a ngi nii c'est mon collègue ñu koy jàngale mosula am président de la République bu toog au-delà de l'échéance du mandat léegi nag damay répondre sa question mooy gis nga fourchette boobu article 31 tëj mooy maanaam day wax ni il faut faire la différence entre la durée du mandat et l'échéance du mandat la durée c'est 5 ans l'échéance nag da lay jox fourchette pour nga mun a organiser élection bi xoolal 2018 bi ñuy jël le la date dañu ne trois euh, échéances lañu trois périodes moom la ñu ñu xool ban moo ci gën a baax mu ne le 24 février 2019 mu jël ko bii aussi le décret a regarder dans la même fourchette gis nga bu ñu ci génnee mooy à partir du 2 avril 2020 2024 euh, la constitutionnalité des actes du président de la République mooy mënatul a poser benn acte benn benn parce que la constitution et la loi de fonction des gouvernants nee nañu fii Sénégal pour nga nekk fi président mën a doxal da ngay waat ci kanamu conseil constitutionnel le président Macky Sall mënatu faa waat mars deux euh, fait le 2 avril day jeex benn bis topp mooy pour nga mun a waat ci kanamu conseil constitutionnel il faut processus ñu def la candidat nga dem pour mën a gagner nga mun a ñëw taxaw loolu mënul am donc li ma mun a wax pour daaneel mooy juridiquement techniquement matériellement amul benn juriste bu mën a soutenir loolu xam nga président de la république li Aziz di wax cuune daf ci am xam nga en moo tax sax ma ni est-ce que un juriste au palais ça se pose parce que mënoon na sax am benn acte boo xam ni c'est un acte neutre ñu ne la président de la république à rapporter le décret parce que rapporté wala foofu boo bëggee sax ñëw pour am un terme neutre mun nga wax la sortie de vigueur mais moom moo wax abrogé et quand tu comme ni ma ko waxee sànq effet ultérieure rek la am lépp lu ñu jëloon day naan day day day day day valable les candidats maintenant ont leur droit léegi nag cour suprême war a mën a dugg suba suba suba wax naa la ni la loi sur la cour suprême président Macky moo ko jël de moo tax ma à il a fait l'une des réformes les plus fécondes de la justice objectivement fu ma toog wax ko mooy le référé administratif Ousmane Sonko sa defoon na ko suba tout candidat mun na dem def loo ko def référé mesure utile ni ko enjoindral yow cour suprême président de la république mu ne day convoquer le corps électoral li xew assemblée nationale ak élection bi amul liaison moo tax Lamine comme li mu wax PDS ils sont dans leur rôle assemblée nationale est dans son rôle mais le président de la République il est le gardien de la constitution il est le garant du fonctionnement régulier des institutions mais il doit respecter la constitution et scrupuleusement mooy lan article le droit de suffrage muy le droit d'être élu et le droit de vote sénégalais am na ko soo réunir les conditions c'est le peuple sénégalais seulement seulement qui le PDS ci seen proposition de loi bi dañu viser article 31. est-ce que du porox ndoolu boobu lañ nar utiliser euh, pour euh, xool nan la ñuy euh, régler la question de la de la prorogation du du du mandat. yow bii yaa ma jox yaa ko wax sànq gis nga article 31 tey boo fa duggoon loo koy laaj boo laalee article 31 da laal article 103 te article 103 nee mënoo maa laal ñu ne ko la tax mënoo laal mu ne man dañ maa caabi caabi jël ñu sànni ko géej. mënumaa tijji boo laalee article 31 c'est pour tijji article 103 te article 103 nee na man mënuñu maa tijji parce que caabi ji ma war a tijji sànni nañ ko géej depuis 2016 président Macky moo ko def on le met à crédit bi mu ñëwee fekk ñu am problème mu mandat troisième war na am war a am dafa ñëw ne damay def réforme loolu mu jukki ko ci commission nationale des réformes mu ni damay indi ñetti yëf yoo xam ne dama koy def dans la clause d'éternité ñu ni ko ban mu ni la durée du mandat ku nekk mandat bi cinq ans lay doon munuñu ko yokk mënuñu ko wàññi ñu ne ko banaat mu ne le mode d'élection du président parce que président Abdoulaye Wade dafa bëggoon a def ticket xoolal bu baax clause d'éternité toujours ci histoire lay jóge mu ne loolu kenn dootu ko laalati président benn nit la te bu ñu koy fal c'est au suffrage universel direct à deux tours ñu ne ko banaat mu ne le mode d'élection du président de la République parce que daf fi fekkoon lenn li ñuy tuddee maintenant une seule limitation boobu moo doon ban la forme républicaine de l'État mooy maanaam Sénégal kenn du ko donnante te Sénégal fii bu ñu la falee ci diir lañ lay fal maanaam la république foofu dañu jàpp ni c'est le nombre des gouvernants et leur durée au pouvoir moo tax la président Macky Sall ci li muy dugg nii amul benn juriste amul benn technicien du droit amul benn spécialiste bu ko wax ni bu ko mën a wax ni mën na nekk la preuve il a fait un discours de quelques minutes lan la wax damay xaar assemblée nationale amul issue may naa la te lu clause d'éternité c'est une clause d'intangibilité c'est la l'intangibilité c'est la fixité boo bëggoon a dem référendum sax ni damay réviser article 31. est-ce qu'il hmm? décide de partir au soir du 3 au, au soir du 2 avril. dans ce cas de figure lenn moo mun a am en attendant processus bi dafa war a continuer mais suñu ko biaisé parce que le président se trouve face à une compétence liée le décret bi nga xam ne daf ko abrogé moom dafa war a am. et la compétence lii c'est ça veut dire que le président est ligoté maintenant su demee nag ba boobu bu ñu trouver bu ñu nekkee en situation de vacances tamit sunu constitution dafa cëral peuple sénégalais parce que peuple sénégalais moom dafa protéger boppam moom day dem président assemblée nationale jël article 31 moom mooy wax loolu la vacance mais ñun defuñu intérim en droit constitutionnel dafa am différence entre intérim ak suppléance la suppléance elle est moins longue su ko président assemblée nationale su boobaa remplacer te moo ko war a remplacer. mais non. bàyyi may la dama la dama la déglu la man may en fait. may ko mu ñëw xam nga man droit constitutionnel lay jàngale. mun nga ma wax loolu. mais bàyyi ma ma def sama démonstration. voilà n'est-ce pas mun nga si bañ a su boobaa noonu. président de la république bu demee ba 2 avril 2024 amul élection moom mënatul a gérer nguur gi. te mënul jaar fenn parce que dañu tëj constitution bi article dans la clause d'éternité président assemblée nationale su ñëwee mënu fi def lu dul quatre-vingt-dix jours. mois. voilà cest ci quatre-vingt-dix yi la mu au plus la mun a organiser élection bi. wala si soixante jours s'il vous ko mu bàyyi ma yeggale rek. bàyyi leen foofu dafa am solo loolu mooy la suppléance parce que il faut ñu joxe lépp aussi ay hypothèses laay teg maanaam président assemblée nationale bi nag dafa am lu bees lu ñu ko fi indil. le député Théodore Monteil sax moo nekkoon ki ko doon wax gis nga bi ñuy mujjee réviser constitution bi avant révision bu mujj bi léegi dañ ni président bi de l'Assemblée nationale suy dugg en période de suppléance article 87 mun na ko appliquer mooy tas Assemblée nationale te loolu daaw ko mën erreur bu bees la bu ñu bàyyi muy porox ndool loolu mën na nekk beneen bi ci topp nag mooy dama jàpp ni pour ñu mun a egg ci étape boobu il faudrait que président de la république moom ci boppam mu mën a trouver les voies et pour que processus bi ñu mënu ko aj te man comme ni ma la wax sànq processus bi dara mënu ko aj su ko dara mën a ajee maintenant xam nga loolu la ñuy tudd c'est-à-dire que on se situe en marge du droit suñu su nekkee nag en marge du droit mooy jéggi nañ li Sénégal di bàggee boppam. démocratie. mooy démocratie ak état du droit deux mamelles yooyu la Sénégal di bàkkee boppam ci àdduna. état de droit mooy des règles qui encadrent canalisent et limitent l'action des pouvoirs publics notamment le président de la république ba pare dem bi ci topp mooy démocratie démocratie nag critères yëpp mën nañ ko discuter ba mu des benn mooy le critère convenu mooy le suffrage universel c'est-à-dire la souveraineté du peuple donc su suñ demee ba foofu noonu amul élection dañu confisquer la volonté du peuple sénégalais parce que tout simplement dañu ne la souveraineté nationale appartient au peuple sénégalais qui l'exerce par la voix de ses représentants ou par le référendum mais représentation représentant yooyu dafa am diir bu ko mën a exercer bu diir boobu jeexee mënatuñu ko assemblée nationale ñu ne ko yow constitution Sénégal mën nga laal lépp lépp ba mu des ñeenti yëf ñu ne ko la durée du mandat le mode d'élection le nombre de renouvellement et la forme républicaine Sénégal kenn mënu fi doonante voilà li am loolu mooy l'état du droit sénégalais